Sénégalais, Sénégalaises, mes chers compatriotes ñi ngi am mbégte ak bànneex di wax ni ki nga xam ni moom lañu naan Aliou Sall nee na waa def nañ ca méeréem ba luy tolloog juróomi weer di ko càmbar moom Aliou Sall nee def nañ ca méeréem ba juróomi weer di ko càmbar waaye càmbar gu ñuy càmbar Aliou Sall ñoruñu lan moo tax ñoruñu ndaxte magam di président de la république moo taxaw ne am na dossier yoo xam ni moo ci teg loxo kon ñuy njort ni bu doon rakkam képp nañ ko dana boole dossier am ca dossier ya nga xam ni teg na ci loxoom Aliou nag lu ko tax di wax ngir bëgg gën a dugal xalifa moo tax mu yëkkati kàddu googu daal ne man sax càmbar nañ ma sa càmbar sàll ngaari lamtoor alwaar bur gede ñoruñu ndax safewul ndaxte bu fekkoon te ni bii safe na ñañu càmbaroon ca poste ba ne leen am ngeen lu ngeen fi randal ñu teg leen place bi xalifa Sall nekk waaye ginnaaw ñooñu teguñu leen fa nga xam ni fa xalifa Khalifa nekk masta maak yow mi rakkam mes chers compatriotes ngeen jëf